waaw asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di wax nag ci marché bi nag waaw man la tuutaan Gueye ñun daal waa Njaari moom li jaye mooy lal ci tëli bi ñu dàq sa jour ngi nii dañ dàq ba toog ñu nag moom ab àll la àll la defaruñ tawee ndox ma dafa taw ndox mi taa jiit yeeg jaan yeeg yëpp ni biir te nag dañoo yor suñu njaboot foofa ñu ñëwul ko ñu ñëw ci kaw doxul suñuy place lakk waaw marché bi doxul suñuy place lakk ñu war ñu koo defaral suñu ko defaralee ñu dellu ci biir bañ ci kaw bi waaw tëli bi defaree suñu place daal ñu dellu ci biir waaw gisatuñ kenn gisoo suñu njaay mi nii gisatuñ kenn dañuy taqale rek di leb di taqale rek waaw man la Mame Goor Diouf marché Ndiarème jafe-jafe ñu jël ñu yóbbu ñu fa la ñuy wax bëccëgu séeréer. ñu di fa jaay. ba nu fa demee ñenn ñu ne def si biir marché bi ñenn ñu nekk foofu. kenn jógatul fii di yegg foofu. ñuy yem foofu même ñenn ñu mujj daw di ñëw daw di ñëw di luye ay place jaag place lu jëm di luye ci place yu diw yi fu ne ñu di fa luye. ay place ci marché bi di fa ñu jekk ba ñu fa desoon daanaka kenn nekkatu fa. mujj na ñaari góor a des foofa. ñu ngi fay jaay ay jën ñenn ñi ñu ngi ko yoon man nag nekk naa fa di jaay di perte bi perte di perte ba li may perte ñu ngi ko suuf am naa 16 jours avant ñuy Tabaski yooyu bàyyi naa njaay maa nga toog sama kër sama doom ñoo xëy bi taxaw mooy tuuma liggéey ci marché ah, projet la fan yi ma fi ñëwee tam bi ma ñëwee léegi juróom benn fan la ñaari fan laa jaay ñeent fan yi ma liggéey ndax ci tëli bi ma la ñuy tëli mag mënut nekk bu tëli tekkee su jëm di sal sal di ñëw nga xëj bu oto yi ñëw nga xëj bu ñu demee nga delloo ko te fu jigéen lal la nga ñëw lal ci kanamam day indi ay ñaaw-ñaaw ndax jigéen ji soo lal ci kanam ñoo jóg fi nga nekk dina si jóg da nga yàq lëggéem fa nga xamante ne moom wala jëkkëram wala doom wala càmmiñam boo lëggee danga gisanteeg moom ñu kerte bu rëy ci yow mu nekk jafe-jafe yu métti na suñu liggéey yàqu na daanaka bu yàlla dafa yàlla dafa dafa am yërmande waaye ñun liggéey bi ci marché bi loo nga xam ne mooy suñu kër te kenn jàppale wuñu ci lenn nag ba ñu lakk Moussa Fall jajëg yéet ak cacax dafa lakk ba dara desut ba ma demee ba ma demee voyage ba ma dikkee ca guddi ga la lépp lakk mara rek te eggale marché bi nag ñu am fu ñu toog jaay ñoo ngi nii wóor na yàlla laa la wax fi mu nii kenn yorutu dërëm dañ ñëwoon dañuy dimbale nañu nguur gi gestu dimbale ñu waay lañ yoroon yëpp lakk na ñoo ngi nii toog man fii ne wóor na yàlla lebaa toog fu ne laay jëm aw dara lu ma jàpp fii ne bët bi seen ñu naan ma fay ma fay ma fay ma la yoroon soog a ñibbi si wayaat lépp a lakk a ah, yóbbu nañu waaye ba ñu yóbboo dañ ne waat leen fii yéen mënu leen fee toog njaay buñ fa teg ñu sàcc ko ñu ne jóge leen fii fii du ngeen fi toog wa leen fa ngeen nekkoon xanaa kañ ko abaloon muy birigu séréer moo ñu ko abaloon mu ne léegi jóge leen fii léegi kenn nekkatu fi maasale nañ foofu yëpp ñu ngi ci tëli bi nii tëli bi ñu toog xam nga neexuñu ndax fi la oto yi war a jaar fi la war a jaaree dama ko dikk te fi mu ne mënuñoo dem mënuñoo dikk ñoo ngi ci tali bi ñun jaay ñu jënd jaaykat yëpp a génn fi mu ci ci tali bi danoo bëgg na ngi defaral ñu marché bi dimbale ñu nag ñu toog fa ñu toogoon di jaay loolu lañ bëggoon